ñaa Balla balaa ma ci doon d'accord Boy Niang daanoon Lac de Guiers quoi bu daanoon Lac de Guiers daal lay ëpp coow quoi. yee. Mhm. pour des na tuuti des naa ñor. waaw des naa ñor. ok Ama Baldé Ama boobu moom combat moom. ñor na xom. waaw tabi rek a des. kon fu mu toll nañu yokkal euh, Ama xaalis wala na jël quatre. waaw nañu yokkal Ama rek. comme que moom moo fi ses kay nañu ko yokkal mu jël ko rek coow ji bu. mu neex waaw Sénégal jëm kanam. Balla Gaye bien sûr combat la parce tey euh, lamb moo toll foo xam ne pour ñu sauver ko dëgg il faut mag ñi jël xale yi parce comme li ma lay wax toujours combat njàndeem yi pour mu am mais dañu war a bàyyi grand yi rek parce que tey jii boo tëggee Lac de Guiers tey ak Modou Lo kenn du ñëw stade parce que kenn soxlawu ko kon donc Boy Boy Niang na ko Balla Gaye jël Eumeu Sène jël Sa Thiès. ba pare mais pourquoi pas mais pourquoi pas parce que tey fu Balla Gaye nangoo jël Boy Niang. wax dëgg yàlla tey jii Eumeu Sène war na mën a jël Sa Thiès parce que lamb la boo yooyu dañu tomba ñoom fi ñu toll woon kon donc na xale yi jëlante seen biir ñu bëri 150 millions yu Balla Gaye di laajte combat boobu d'accord nga non bien sûr mën na am 200 millions parce que combat boo xamante ni combat risque la parce que Balla tey amatul lenn lu muy prouver si lamb amatul lenn lu muy prouver si lamb ba Modou Lo Modou li mu soxla woon te deseloon ko waa parcelle jox na leen ko tey jii xale yi nekk si suuf ñoo am problème parce que ku si nekk bëgg bëggoo mu génn parcelle. Ama Baldé dafa war a jël 80 yi bëre wala dafa war dafa war a xaar ñu yokkal ko 100. non war nañ ko fa faye 100 euh, millions parce que combat boobu booy xool année bi combat bi si mu taxaw combat Modou Lo Eumeu Sène moo ak Ama Baldé moo ci dàq. moo ci dàq. wallaahi wal azim combat boobu mooy combat boo xamante ni waxuma la dara mais moo raw suusalu kaani lu leer laa lay wax non déggoo ma de man dama ne la dama bëgg nga téye combat ba bu taxawee di nga gis combat boo xamante ni musta am si àdduna kon na xaar 100 millions yi gis nga combat combat Modou Lo Balla bu njëkk ba bi moo ko raw bii Fisselu Kaani moo koy raw njarndeem la boo xamante ni xoolal stade ba waa parcelle bu ñu xeexee kenn du dugg promoteur bu ko tëgg doo perte boo perte man mbaytin ma bàyyi làmb lu leer laa lay wax ni kon yow d'accord déggoo dafa war a encaissé 100 mu préparé parce que combat boobu combat ru yàlla. ma am ay combat yu gars yi di waxtaanee mu nekk ay combat yu coûteux mais ay combat yu mën a yëngal làmb tey Balla Gaye Boy Niang nga ci wala. waaw mais romb d'accord Balla def na lu la ci làmb da wax na leen ko dégg nga ñu bëri ñu ni pare na pour bëre mais loolu mais loolu mooy révéler làmb ji Balla Gaye su bëreeg Boy Niang Ama a bëreeg Modou Eumeu Sène soit Gouye Gui soit Sa Thiès wala keneen te autre mais loolu loolu lañ soxla. mais mais mais Balla booy Boy Niang ak fi lamb toll muy laajte 150 millions d'accord xam nga salaire yu jàmbur lu ci waay wax tooñ nit. am na droit de 200 millions. kenn ku de sañ nga laaj li nga bëgg mais kii bëgg nañu bàyyi di wax ci ay journaux naan Balla Gaye nee na lay laaj. Modou Lo nee na 200 lay laaj. yooyu c'est faux lamb ju mag taxawal nañ fi bu ne da ngay dem tëjoog mbër mi waxtaane mu ci biir néeg. wax ko li nga am man fekk naa fi mbër organiser ko mu am lamb ji dëgër ma seete ko mu wàññi 12 millions 500 wax naa ko télé ñëpp xam ko ay wala mu wàññi 20 million fekk ne ma fi yooyu yëpp def nañ ko ak mbër mais toog ci salaire yu jàmbur mu am njaboot am ñu koy ñaanal am ñu koy jàppale nga taxaw di génne salaire bi day bëgg mais kooku yaa ko sonal ci làmb ja kooku am na yokk boo ko fayee du ko jël dama la dugg ngeen waxtaan ci sutura ci kàttanu yàlla professionnalisme moo manqué ci làmb ji. Ama Baldé mi xaar il paraît fay nañ ko 80 muy xaar 100. am na ci droit. ñaari combat laa la bëgg a laajte ndax validé nga ko waaw en tant que champion en tant que koo xamante ne bëgg nga lu neex bëgg nga làmb bëgg nga événement. Balla Gaye Boy Niang validé nga ko. waaw bu leen fayee lu ko jar war nañu mën a bëre parce que làmb euh, business la làmb day toll fi nga xam ne bu la fayee lu ko jar mën na bëre pourquoi pas amul benn waaye bu leen fay lu ko jar war nañ ko mën a bëre. mais cachet bi ñu ciy laajte est-ce que pour yow jaadu na ak fii sponsor yi toll 150 millions bi ba euh, Balla Gaye di réclamer nga foog ne ak fii fii la euh, sponsor yi toll est jaadu na. làmb war nañ mën a fay sax lu raw loolu. mais ci période bi est-ce que. ak période bi yëpp làmb xam nañ lu ci ne ñun xam nañ làmb mais mbëri fu ñu toll nii. Euh, war nañ mën a am lu ne parce que mbër tamit xoolal ñëpp a ngi toog sol civilisé sol yëre yu set toog ci kaw yaa ngi takk ay jàjj doo nelaw guddi doo def dara ay weer bàyyi sa njaboot bàyyi lépp noo lamb jar na lu ne na leen ñaanal yàlla rek yàlla indi ay xéwal ba ñu tëgg combat yooyu yëpp. sa relation ak Balla nga nekk koo xamante ne sa relation combat ak Balla Gaye li ko tëgg mooy bi nga ñëwee gungee Modou yàlla may Modou Lo euh, Balla Gaye ndam Balla Gaye ne ki nga doon ki doon jàppale Modou na ñëw ñu bëre. nga jege woon trop Modou Lo dëkkoon Parcelles Assainies jege woon waa parcelle nga dem ba féete ci moom loolu lan la. non loolu moom du ma ci wax parce que lu passé ay années amul sens ma ciy wax li am sens tey indi ma fi mooy suma doom suma xarit mooy bëre loolu moo ma intéresse actuellement. comment Modou Lo booy euh, Modou Lo euh, Ama Baldé non. waaw combat la c'est normal bu leen fayee lu ko jaral ñu bëre làmb business dañuy liggéey rek parce que tey boo xoolee am na mbër yu bëri yi nga xam ne bàyyi nañ làmb tey ñu si ay affaires yu doy waar. kon boog bu ñu si tolloo nañu xam ne dañ fee toll ñu fay leen lu ko jar bu ëllëgee bu ñu bàyyi làmb mën a gérer seen avenir loolu c'est très important il faut mbër sóoraal loolu parce que bëri na mbër yi nga xam ne bëri nañ fi am nañ ay talaf talaf ak yëpp lu ko waral mooy ban si tolloo fay ñu leen lu ko jar kon boog nañ fee toll nañ leen fay lu ko jar xaalis bu weex tàll ñu bëri ci. ñu investir oui c'est normal. merci beaucoup merci mbaa may arrière mbaa may daw. ñu ñu lay dégg nga naan Baboy euh, kii nu mu tuddee euh, de Balla Gaye 2 Boy Niang Boy Niang ko mën mm-hmm. da dem bay bay wax yooyu ñu wax ni Boy war waroo am dara lu muy sóor ci Balla Gaye waxuma Balla Gaye 2 Boy Niang moo ko mën comprendre nga dañ ma ni ndax Boy Niang ak Balla Gaye la man leen lamb la pourquoi pas du lamb ndax Boy ñaa mun na ko daan man leen mun na ko daan ndax làmb ku ne mun naa daan moromam comprendre nga gars yi nañuy bàyyi bu nit waxee luy ñu jël wax ji interpréter ko neneen man aw ma xaar ma yàlla benn mbër mais Pikine laa dëkk tey su may far Pikine laay far comprendre nga mais taxul may wax ci mbër mu dëkkul Pikine ci moom lu ñaaw waaw. Balla Gaye 2 Boy Niang validé nga ko. validé naa ko kay làmb la ah. waaw. Boy Niang euh, ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé Modou Lo taxawagul parce que Ama il paraît day laajte 100 millions d'accord nga. d'accord naa waaw parce que Modou Lo kuy bëreeg moom ah. il faut nga préparer ko ndox ndax champion la ndaanaan la Modou Lo. képp kuy bëreeg moom ñu naan la yaa mën a boo ko jaaree fii da nga koy daan ñu ngi lay nax Ama Balde moo la gën a xam ni Modou Lo champion la mbër la bëreeg Modou Lo am na lu bëree bëri lu mu yokk ci carrière am te ragalul Modou Lo mais lu jaadu ku ko dégg xam ko Modou Lo weccut du bëreeg moom man lim def d'accord naa ci de déedéet pour lan. Modou Lo préparation Modou Lo bokkul ak préparation li si cent millions lim yi lim kooku caaxaan bëreewul ak moom <laughs> ndaanaan la champion la bari sëñ Saliou. mbër mi nag xam naa ko ragalul dara champion la mbër la mais Modou Lo bëreeg moom moo métti loolu àdduna yëpp xam nañ ni bëreeg Modou loo gën a métti ci làmb waaw yàlla na combat bi taxaw Ama Balde am ci ndam ci barki yonent bi ñaari combat yi nga xamante ne koy coow mu nekk combat yu doy waar Balla Gaye Boy Niang est-ce que naa 100 pour cent Balla Gaye dafa bëre ak ay moroomam bañ jeex mu daan ay magam kon ay rakkama fi des te Fall daf maa waxal ni ma mbër soo ko mënee da nga koy daal kon Balla Balla Gaye Boy Niang buñ leen feelu ko jar nañu bëre Modou Lo ak Ama Baldé dañoo war a bëre. mais Ama Baldé di waaw mais xam nga Ama Baldé li muy jëree ne làmb euh, parce que fi ñu toll ci làmb mbër mu nekk yaay fay sa bopp Ama dafa bari supporter parce que li ma dégg nag xaw ma am na wala déet. bu ñu fayee mbër 150 ku mel ni Modou Lo Balla laaj euh, euh, Ama Baldé laaj 100 millions jaadu na nañu waxante dëgg parce que da ngay xam ne Modou mooy roi des arènes incontournable bëri ak ay moroomam moom itam presque ba ñu jeex mu cof ci ay magam bëreeg ñoom Ama ñëw daan ay moroomam bëreeg ay magam parce que dafa bëre. ñi nga ne ay moromam la ñu bëre ak ñu Modou Lo bëree lagul ndax amaa xam nga ne moo daan Tapha Tine waaw waaw dëgg-dëgg euh, wax dëgg yàlla bu fekkee kiif am na cent et quelques millions amaa mérité na cent millions. Modou Lo Modou Lo euh, Ama Baldé taxawagul nee nañu Ama mooy laajte cent d'accord nga. d'accord naa parce que maanaam prix ba mënuñu koo fay cent cinquante di ko di ay quatre vingt. cent yi c'est normal. normal na cent normal na. waaw. mu bëre. Balla na Balla Gaye Boy Niang d'accord nga. d'accord naa c'est normal waaw. Balla Gaye nañu doy wàññi prix yi rek gars yi bëre ak yi parce que maanaam dañoo war a may booy yi chance ubbi lam ji looloo tey fii mu nekk nii mais lam ji war naa dépassé fii nañu may xale yi chance ñu bëre. kale li kale combat bi nañu yokkal Ama Baldé wala d'accord nga cachet bi. xam nga loolu lu ñu waroon a waxtaane la ñu ngi doog a gisante dama ne combat boobu bi. la majeure partie disponible na promoteur yi koy xëccoo tamit ña koy xëccoo di ko dox ci suuf mais dama ne la combat boobu c'est la c'est combat la boo xam ne c'est la guerre des maa la ko wax c'est la guerre des esprits c'est la guerre des cumukaay c'est la guerre des mystiques. mystique koy xool ba xam combat boobu dina taxaw wala taxaw parce que combat boobu li ci nekk bari. dañ koy seet ci géej nga ni ko tali dinañ ko seet ci seetu dégg de. combat bi ba mu taxaw mu wax la. <laughs> Boy Niang d'accord. Euh, pour ñun jaadu na ñi ñi jàll ci grand contre petit bu ñu xoolee ci angle boobu noonu jaadu na loolu la tax looloo tax bëgg combat yi Ama Modou Lo euh, Balla Boy Niang Reug Reug Bombardier pourquoi pas Sa Thiès Ama Baldé Ama Baldé euh, Modou Lo kase moo euh, xaalis moo ko xaw a tuuti 100 millions yi booy bi di exiger d'accord nga. Euh, bu doon man may moom dama exiger su ma mënee am am jël ko mais su ma gëmee ni promoteur nekkul si disposition yokkal ma naa négocier ak moom ba mu yokkal ma tuuti mais bañ a insister naan ay 100 millions ou rien promoteur da gis boppam. Luc Nicolaï ku baax la lu mu deful rek amu ko lu mu yéenee mbër. yéenee na ko gisoon nañ fi ay combat yi mu négocier combat dem adversaire ñaar adversaire yi accepté lu leen proposé mu dem bi am ay partenaire ay sponsor mu dolli leen ci ay millions donc nañ négocier ak moom bi juboo